sëriñ bi dana sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéeyal aoudu billahi min ashaytani rajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalaamu ala rasulillah assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ñu ngi nuyu mbokk jullit yi nuyu bu sell di ñaan suñu borom subhanahu wa taala suñuy kàddu fekk li ci jàmm ak tawfiq comme niñ ko baaxoo defee ci suñu jotaay yu ne mu jotaay yu yóbbalu mu xam say mu mel ni jotaay yi weesu jàngale woon nañ ndox mu laab ak la ci aju yëpp kon nag suñu jotaay yu tey dañuy dikk ku bëgg julli war naa dem jàpp kon képp ku bëgg julli rek war naa dem jàpp baa kon bu ndox amul mu dem tiim bu jullee nag noonu baa mu tiim te fekk am ndox am te yaramam bañu ko ak julleem du baax te day sonal boppam rek waaye julleem googee du baax kon képp ku bëgg a julli war naa dem jàpp bu ndox amul mu dem tiim wala sax ndox am na waaye dafa feebar bu nekk ci moom bu laalee ndox ma feebar bi day yokk wala sax bu laalee ndox ma ak feebar la ci sosoo kon kooku donte ndox am na na dem tiim te dem ci ak jaamu yàlla jàpp nag bokk na ci ay farataam nga raxas sa kanam ba mu daj bu ñu nee raxas sa kanam ba mu daj nag mooy kanam dafa am yaatuwaay am ab guddaay bu ñu nee guddaayu kanam mooy la tàmbalee ca jëba fa karaw ga baaxoo saxe ba ci sikkin bi bu ñu yaatuwaay yaatuwaayu kanam gi nag mi ngi tàmbalee ca nopp ndeyjoor ba ba ci nopp kon nga raxas ko ba mu daj bokk na ci faratay jàpp booy jàpp nag sopp nañ ci jàpp nga bañ a bari ndox ndox maanaam nga jël ndox mu bari di ko tuur rek di yàq nang nga sa kanam ndox ma def ko ba mu digg dóom te booy jàpp nga jublu penku wax bismillahi booy tàmbali te bañ a wax ci biir njàpp la ay waxi caaxaan wala xeet yooyu yu mel mel ni yooyu da ngay wax ca biir jàpp la tudd yàlla boo ko mënee julli nag ku wax ni waru doonatul ab jullit képp ko xam dafa wax ne julli warul na xam ne kooku donte ab jullit la woon ba mu waxee ne julli warul kon kooku doonatul ab jullit bu xamee ne nag julli war war ba noppi mu xam ne julli kat lu war la ba noppi daal kooku dañ koy jàppee ab saay-saay bu bon ab saay-saay bu bon a bon dañ koy jàppee nii la ñuy jullee nag da dem ci barab barab bu laab bu amul benn sobe barab ba ngay jullee kon warta am sobe fekk itam sa yaram amul benn sobe kon sa yaram warta benn sobe fekk itam say sër mooy say yére amul benn sobe fekk say yére tamit amul benn sobe kon ñett yooyu kuy julli war ko bàyyi xel barab ba ngay julli bu mu am sobe say yére bu am sobe sa yaram it bu mu am sobe sa yére it na muur sa yaram yëpp moom daj ba nga xamee ne say xawra du feeñ buñ ne xawraayu góor nag mooy la tàmbalee ci jumba xam la muur jumba xam ba ci ay buti oomo ba ci ay oomo loolu mooy xawraay góor la la muur jumba ba yegg ca la muur te bëti ëmb mooy xawraay góor bu dee xawraay jigéen nag jigéen moom yaram bépp xawra ba mu des xar kanamam ak ay loxoom mooy la tàmbalee ci cati loxo ya ba ci tikki jare mooy fa ñuy takk ay montre yu mel noonu cati loxo ya ba foofu loolu moo war a feeñ ak xar kanam kon loolu mooy xawraay góor bu mu feeñ buy julli bu dee jigéen léppam xawra kon loolu daf ci xamee ne jigéen moom léppam xawra la ba mu des xar kanamam ak ay cati loxoom ba ci fa muy takkee moom kon ku jigéen ku nekk war na di muur aw yaramam ba mu dañ daal di jublu penk daal di lekkaam ginnaaw bu muuree ay cërëm sobe takku ko takkut fa jullee takkul ci ay yére na jublu penku daal di liqaam liqaam nag mooy baat yii may bëgg a wax allahu akbaru allahu akbaru ashhadu an laa ilaha illa allahu ashhadu anna muhammadan rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam hayya ala salaati hayya ala alfalaahi قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله kon kàddu yooyu mooy liqaam liqaam nag ñu bari buñ koy def duñ indi sadd yi duñ li ci jar a bàyyi xel dëgg-dëgg nag mooy nga fexe bay indi masque ak sadd lu mel ni allahu akbarullaahu akbaru xam nga kon masque yëpp ñëw na masque lonk yi ñëw na sadd yi ñëw na ashadu bañ a wax ashadu am na ñoo xam ne dañ naan allahu akbar allahu akbar déedéet allahu akbarullaahu akbaru as da ngay indi sadd as ba mu ba mu leer bañ a wax ashadu am na ñoo xam dañuy maa sadd naan ashadu déedéet da naan ashadu an diggante sax yi ñëwee allah allah laa ilaha illa allahu masque huwa boobu day ñëw nga wax ne ashadu anna muhammadan rasulullahi nga xam ne sax yi day ñëw ñu ne sallallahu alayhi wa sallam nga ñëw hayya ala salaati hayya ala falaahi qad qaamati salaatun laahu akbarun laahu akbaru laa ilaha illa kon dafay mel ni sadd yi ñëw na masque yi ñëw na fenn rek lañ indiwut masque mm, lu dañoo dañoo indi masque néeg mooy mujjantalu lexaan mooy ashadu an laa ilaha illa foofu moom doo ko masque koy indi masque sadd la kon loolu mooy lexaan li ci jar a bàyyi xel mooy masque yi ak sadda yi sadda yi ak masque yi ba mu ñëw bu sadda yi ak masque yi yëpp ñëwee ba mu mat mat li xaam mooy nekk noonu kon loolu lu jërë bàyyi xel la ndax li lu am solo la boo li ba pare nag daal di jublu penku daal di wax ci sam xel ne fas na maa yéenee julli faratay waxtu wii bu dee tisbaar nga ne tisbaar bu dee tàkkusaan nga ne tàkkusaan bu dee timis nga ne timis waxtu wu man mën di doon nga wax ko ci sam xel bu dee nag yow mi julli ilimaan ba lay jiite nga ne fas na fas yéene naay roy ci ilimaan jii kon boobaa da ngay yéene roy ci ilimaan loolu yëpp lu jar a bàyyi xel ko defee nag nga daal di tàbbi ci julli gi daal di wax allahu akbar daal di yëkkati say loxo bi ngay wax allahu akbar bam yëkkati si say mbagg nga wàcce kon laa ngi waxaale allahu akbar kon loolu moo lay tàbbal ci guddi gi kon xam naa ne dañuy yemale fii kàddu jox dig dëggee suñ jotaay bii ñu naan ñu toppee ñu andi julli liñ ciy tari ak boo sëggee li ngay wax ay boo rokkee li ngay wax ak boo sujootee li ngay wax lépp lépp aju insha allah rabbi kon ñu ngi wax kàddu yi di jox dig dëggee beneen jamono insha allah in uridu illa al-islaha ma stata'tu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu alaykum wa wa barakaatuh. sëriñ bi de i tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéeyal